bismillah yik fii niin agaala yàllaaw safi baqa abin bi fiika yàllaaw yaa man lawool amru yaa man laa sharika lahu wasi wa ma lil waad li fiika yàllaaw وجاتك اليوم يا رمان مرتجيا فوزي بما ستوسي دنياك يا الله ba dañoo amoon yéene ñëw fa yow yee li nga xam ne moom lañ fekkoon waaye fekk jamono yooya nga ñaanoon ñu may la nga ne ci yitte yeneen ya waaye nee na téléphone ba mu téléphoné woon nag nee na mi ngi koy jégalu bu baax Mbàkke. ak nee ak cant rek ko ko gàttandu. moom de. waay waay baat ba mu wax ba toogee jot la téléphone dafa wax ne soxlaatuma dara waaw daf wax ne soxlaatuma dara. wax na ma ko jëf na ko te fekk na mooy borom kër gi te lu ma waxoon laay def waaw bis bu set ku ñëw ku ne day borom kër gi de lam ma waxoon def na ko dëgëral na sama yaakaar ñemeloo na ma it fi ma jëm waaw li ñuy ñaan daal mooy sëñ Tuubaa guddal sa wi nga yàgg fi lool nga amug wér te nangul la liggéey bi te nga ñaanal ñu ci sa pas-pas bi nga am ci sëñ Tuubaa pas-pas bii nga yore ci sëñ Tuubaa wulli ci yoon wépp ba ñëpp sa war a dox kenn ku ne gën a am xemem ci sëñ Touba kenn ku ne gën a am yéene liggéeyal ko nga ñaanal ñu jëmmam ji na sut mbooleem kum fi mas a weesu aw aw fan. ndax ba mu toogee dajale na kër gépp lii wër mooy njabootu magam yu baax yi fi nekkoon ànd koog ma way juróom yu baax yi fi nekkoon dalee na fu su ma yéenee dem te yóbbaale wu ma leen du ma bàyyi kenn fii ma toog nag yéen laa fi toogal seen soxla rek lay déglu kër gi nag benn borom la am ma nga Touba muy sëñ Mountakha ñoo bokk bokk gi. te moo yilif lépp te nee na loo wax rek lañuy wax. in kuntu sawatari aw kuntu sawaja التي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداء بلاسي اللي اخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداء بنفسي لاخترته يا الله كليتني كل في كبر بلا كل في يا متكبر تلك يا الله السلام عليكم ورحمة الله من السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سرين توبا سرين توبا moo ñëw Daaru Salaam. moo ñëw Daaru Salaam. seet si ak njabootu borom gaawaan gépp. ak njabootu borom gaawaan gépp. Serigne Touba. Serigne na fi yàgg lool te gën a wér. Serigne Touba. Serigne Mountakha. yal na fi yàgg lool te gën a wér. Serigne Touba. Serigne Mountakha. yal na fi yàgg lool te gën a wér. te lépp loo xam ne nekkoon na mébéti maamam. ak way juram yi ko fi jiitu. ak magam lépp yal na ko àggale. ci sagoom. université bii nag moo ci mu naal nag moo ci raw. jàngukaay bi jàngukaay jël caabi ji. yal ji. ko. ko. ba teg lu bari ba teg bari. sëriñ bi sëriñ bi. sëriñ na. sëriñ aboo nee na. yeesalaat seenu taalibe. ak taalibeem. di yeesalaat seenug laxasaay. di yeesalaat seenug laxasaay. di seen bopp. di jébbalewaat seen bopp. di sant di la sant cant goo xam ne. am na fu mu am na fu mu tàmbalee. waaye amul waaye nag amul fu mu yem. suñu ko mënoon. na maam Cheikh doon sant sëriñ Touba. na maam Cheikh Anta doon sant sëriñ Touba. ba mu jógee ci géej gi ñëw fi. ba mu jógee ci géej gi ñëw fi. kon danañ la sant noona. kon danañ la sant noona. wala nu ko raw sax. wala nu ko raw sax. Eh, waaye nag. waaye nag. seeni xol. seeni xol. ak seen lépp. ak seen lépp. jébbalaat nañ la ko. jébbalaat nañ la ko. na maam Cheikh Anta woon boppam. na maam Cheikh Anta jébbale woon boppam. dikk gii nga dikk Daaru dikk gii Salaam. mooy li ma waxoon keroog rek da loxo rek. mooy lam waxoon keroog da ñoo beral loxo. ndax li fi xew lépp. ndax li xew lépp. teraanga ji yëpp yaa ko def. teraanga ji yaa ko def. màggal giit. màggal giit. na. sëriñ bi nee na. teraanga ji yëpp def. teraanga ji yëpp yaa ko def. sag màggala. sag màggala. yaa ko moom. yaa ko moom. ci anam yëpp. ci anam yëpp. waaye teraanga yi doyoon na sëkk. teraanga yi nga yëkkati sa waaye nag nga yëkkati sa tànk. ak coono yu bari yi. ak coono yu bari yi. fii. ñëw fii. na ñu ngi koy jégalu bu baax a baax. sëriñ Abo Mouhamed nee na mi ngi koy jégalu. te di la ci sant nag bu baax a baax a baax. cant goo xam ne yemut fenn. moog bokkam yi fi nekk. moog bokkam yi fi nekk. ak bokki taalibe yëpp. ak bokki taalibe yëpp. ñoo ngi di ñaan bu baax a baax di ñaan bu baax a baax Mbacke nga gën fee yàgg te gën a wér. nee na foo def seen saar ak doy na sëkk. nee na jataay bi itam yëg na ko bu baax a baax a baax. nee na yitte ji xam ne moom la sëriñ aboo feeñal. xam na ne Pastef bu wér moo ko lal ak yéene ju rafet nee na loolu day yëg nañ ko bu baax a baax a baax nee na xolam gën naa sedd am xelamit gën naa dal yaakaaram itam gën naa dolli ko nee na li ne ci ab xolam akum xelam mënu ko wax sax ci aw làmmiñam cant gu rëy xam ne sant naa ko ci yitte sëriñ aboo ji. na cant gu xam ne sant na ko ci yittey sëriñ ci jataay bi. li ñu fi jëlee bari na lool. nee na li ñu fi jëlee bari na lool. te nee na lépp njariñam la. nee li ci mujj. feeñal di gën a di gën a yeesal bu ma ma yeesal waxtu bu nekk sama jaayante ak na mi ngi ñuy def seere ci yeesal goo xam ne waxtu wu ne da koy gën a yeesal ak jaayanteem ci sëriñ Touba. di leen seereel it gën a leen seereel it ne mi ngi gën a feddale waat ak laxasaayam. fas yéene ko ànd ak bokk yëpp ànd ak bokk yëpp ak bokki taalibe yi. amul nee na amul benn benn xememteef. bu dul nekkal Serigne Touba. bu dul nekkal Serigne Touba rek. sax ci liggéeyal di sax dakk nag ci di liggéeyal Serigne Touba. ànd ko mboolem mbokk yi nag. nag ak mboolem mbokk yëpp. ak mboolem mbokki taalibe yi. loolu rek mooy sama nee na loolu rek mooy yéeneem. amul beneen xalaat amul it beneen bëgg-bëgg amut it beneen xememteef la. xanaa nag loo xam ne ak cant rek la. te mënu koo wax ci aw làmmiñam. loolu moo di. loolu moo di. soññe bu rëy bi nga xam ne. bu rëy bi nga xam ne. ñi mu bokkal sëriñ bi. ñi mu bokkal sëriñ bi. ñëpp ñëpp. ñi ngi ko ciy soññi. loolu ak cantam. mënu koo wax ci aw làmmiñam nee na da koy seereel sunu borom mi ñu booleeg sëriñ bi. seere ko sëriñ bi muy sunu lépp tey ak ëllëg. ngeen xam ne daal sant na gërëm na. xolam sedd na xelam dal na. nee na fépp foo xam ne yaakaar dana fa àgg. yaakaaram dolli ku ne ba àgg fa. sababu yitte jii nag. ci sababu nag yitte jii nga xam ne. lu ca nekkoon desoon rek. lu ca desoon bii moom. jotaay bii moom loola. jërë ngeen jëf. kabiru la si baanat kabaaratu li xutta min kakabi raw ajiri yàllaaw atal afiisu la si wajaata fi abadin إلى سواي الإيداع والضر يا الله أنت المقيت لسي خلقت لي رقادا بلا إصاب إلا الجنات يا الله أنت الأسيب لسي قد اكتفيت به عن الإدعاء والآسى والكد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 وستتوا سئاتا بالإتخي الله أنت الأكيم الذي أرلختني لسوى ما زاني وما أو تسوء يا الله أنت الودود الذي خاد موادته لسرمدا بريلا والقرب يا الله عسى المجيد لاسي بان النجادة وخدت لي منك مجدا فاخ يا الله وإنك الباعث المبقي بلا ضرر كويتني جملة الدار يا الله أنت سيد الأنسين خادر سهادته لبترايك من نساك يا الله يا خلص البيئة كلام جملة معي لم ترل لي مطلقا بالفضل يا الله يا قليص أبي أقن وجملة ما لم ترللي مطلقا بالفدر يا الله